et puis ñu di ko gërëm ci disponibilité am di ko wax euh, bienvenue ci këram. Euh, mu ngi noonu Mohamed comme ni nga ko waxee dañu koy sonal tout le temps mais c' important parce que euh, fii këram la ci noonu itam la ñuy soogoo ci waxtaan wi sans plus tarder peut être dañ koy door rek li nga xamante ne moom mooy yees muy continuité mën nañ ko wax ak conséquence ki nga xamante ne moom moo di Mélenchon bi mu ñëwee fii ci Sénégal les propos mu mel ni dafa élargir ba ñu gis ci ay arrestation ñu nemmeeku ci ba jaxate di mais également ki xamante ne moo di imam Cheikh Tidiane Ndao par rapport ak arrestation yi d' abord ban lecture ngay def ci li nga xamante ne moom lañ ci gis. waaw jërëjëf euh, pour Bah Diakhaté moom maîtriser naa ko bu baax ndax bi ñu ko jàppee dem naa démb di plateau ba minuit tegal fanweeri minute ma door fa jógee bi ma xëy itam waxtaan wax na ma ak avocat yi li nga xam mooy mooy li ma jàpp mooy démb bi mu signé procès verbal d' bi. Mm-hmm. ak ba jamono jii ñuy wax. Bah Diakhaté est notage otage politique de Ousmane Sonko. Hmm. avec la complicité du ministre Ousmane Diagne et du procureur République. ba ñu ko lañ ko doon toppee ba mu ñëwee laaj nañ ko lañ ko laaj lépp tontu na leen. ñoom seen bopp ña nga xam ne ñoo ko jàppalu bañ bañ ba ñu gisee procès verbal bi xam nañu war duñ ko fa téye léegi nag pour ñu yokk maanaam yokk kawar ci ci xar mi ñu woowaat ko pour dégluwaat ko. mën leen du ma waxati ak yéen li may wax naa ko ba noppi. kon guddi yi nu toll na Sénégal yi xam ne Bah Diakhaté est un otage politique de Ousmane Sonko avec la complicité du ministre de la justice Ousmane Diagne la DIC bi ko retenir nañu xam ne ils sont c'est un rap qu'ils sont en train d'opérer et que defu fa dara ndax lañ ko toppee lépp tont na leen te lenn waru ko cee topp lu tax ba dañ ne dafa def offense au premier ministre diffusion de fausses nouvelles bu dee premier ministre ba kenn ku ne déglu na Ousmane Sonko bi mu ci nda ci ndaje mag ma Mélenchon ba muy wax daf ne ñëw fa ngir premier poste premier ministre sol mbubum premier ministre poste mbirum mbubum président Pastef la sol mu yëkkatee yëkkati fee kàddu kàddu yooyu la ko Bah Diakhaté tontu en tant que président de Pastef lu Bah Diakhaté wax président Pastef yoonu procureur nekku ci parce que président Pastef moom Bah Diakhaté man mi ak yow ñoo yem ci ci bi kon la ko bàyyi wax bu fekkee dafa naqari Ousmane Sonko moom moo war a porter plainte mais yoonu procureur nekku ci li ñuy wax décision de fausse nouvelle maanaam tasaare xabaar bu du dëgg Ousmane Sonko 2016 bi ñu ko dàqee comme euh, DG dafa def déclaration de patrimoine bind ni lii laa am ñu toog ñaari at après 2018 mu jaay ak kër jaay ko cent millions. kër googu mu ngi ko jënd deux mille huit kon déclaration bi mu def deux mille seize defu ko ci kon fenn na Sénégal yi Bah deful dara fi mu ne nii ci loxo yi dikk dañ ko war a bàyyi mu ñibbi c'est un notage et personne ne doit l'accepter parce que bu ñu leen bàyyi lii jàll ëllëg ñëpp lañ daw li tax na ma may cee wax loolu may man sama bopp il y a un mois sama xarit daf ma woo ne ma gars yi di ñu ngi say tànk ah ma ne ko nañ gaaw ñëw man damaa yàkkamti damaa nam rëbës bëkk démb ci sam semaine bi weesu sama beneen xarit woo ma ma dem këram fekk ko mu ne ma dafa am ci mu ne ma diw diw moomee nag du ma tudd turam léegi c'est un avocat ci pool yi doon défendre Ousmane Sonko la bokk avocat bu siiw kooku ne ko waxal Moustapha Diakhaté mu teggi tànkam ma ne ko man de sama tànk tegaguma ko sax ba di ko teggi ndax man opposé guma Ousmane Sonko <laughs> su ma ko opposé daañu xam ne opposé naa ko ma ne ko benn xam na sama numéro téléphone na ma woo Sonko man de bi may teg sama tànk ci politique 1966 la booba Ousmane Sonko ñaari at la am bi may teg sama tànk ci politique 1976 1976 ci RND booba Bassirou Diomaye Faye judduwut bi may teg sama tànk ci politique booba avocat boobu judduwut ñoom ñépp nag seen bàyyi xaw ma ko woon ci xeex bi kon encore une fois bi ñu ma waxee loolu man damaa jàppoon ne man la ñuy jëkk jàpp ci baax xëy na dañoo amagul lu ñu ma jàppee waaye man jàpp naa ne dañ ma jàpp ndax loolu lu ñu programme ginaaw nag ñoom fen nañu ba falu te wóor nañu ñu fi def dara ci jàpp ak tiitalaat lañ bëgg a yor réew mooy loolu. ñu gis ne ne euh, ñi nga xamante ne mooy gouvernement bu bees bi dafa prôné woon bu yàgg li nga xamante ne moo jëm ci wàllub abrogation li ñeel euh, article quatre-vingt muy offense au chef de l'État euh, tey gis nañ ne peut-être ci yenn mbir yi bu dul offense au chef de l'État itam ñu ngi koy def offense au premier ministre. Ah. par rapport à cet article noo ko jàngate est-ce que tey jotul yenn pratiques yi nga xamante ne peut-être moom lañ doon nemmeeku muy ñenn ñi ñu daan woowee les insulteurs de la république tey jii loolu war a mën a dakk ci ci ci réew mu mel nii. xam nga man moom ñi ma xam di ma suivre yëpp xam nañ ne naka jekk dama mosu d' accord ci offense au chef de l' parce que loolu day loi boo xam dañ ko donné ci nguur. Hmm. man gëwuma loolu. mooy nag mooy article deux cent cinquante quatre. oui wala deux cent cinquante cinq du code hmm. pénal. oui. jaxate maanaam li nga xam ne moo daan am 1960 ba léegi. Hmm. dañ daan jàpp nit ñi ci offense au chef de l' Ousmane Sonko nag moo fi indi offense au premier ministre mi ngi woon nag ci code bi daan dégg nit ñaa nekku waaye am na lu koy niru ci code pénal bi mhm. waaye offense au premier ministre moom Ousmane Sonko ko fi indi ah xanaa loolu nag li tax mooy ginnaaw moom mooy président de fait et que Bassirou Diomaye Faye président prête-nom xam naa moo tax mu bëgg a jaawale boppam ak président la république encore une fois Bah Diakhaté li ñu koy toppee amul offense au premier moom lépp dëgg la te nag ki mu doon waxal président de Pastef la waaye waxul ak premier ministre de la république du Sénégal Ousmane Sonko nag moo waxal boppam keroog ci mbirum Mélenchon ma ne moom ñëwu fa ci turu état bi turu Pastef la fa ñëwee gannaaw nag ci turu Pastef la fa ñëwee lu ñu ko wax ci ci mbir mooma daa war a jàpp ni passé lañ ko loolu moo tax le procureur de la république xaw ma ban procureur la ci waaye li def turu ko penn yoon mayu ko. alors euh, euh, président ñu bëri dañoo soulever cette question euh, jëm ci offense au chef du gouvernement ñu ciy laam-laame ndax am na am déet euh, ñun on a interrogé aujourd'hui un professeur en droit nekk ci université Cheikh Anta Diop Dakar en l'occurrence Serigne Thiam mi wax ne cette disposition est bien euh, prévue par le législateur dans le code pénal en son article wax nga ko léegi deux cent 154 mais bii ci alinéa 2 bi. Euh, parce que dafa wax ne monsieur Ousmane Sonko en tant que chef de gouvernement est aussi dépositaire euh, des pouvoirs du président de la République Bassirou Diomaye est-ce que foofu itam mënuñu jàpp ne ay la yowin que au chef du gouvernement am na. waaw oh, xam nga offense au chef du gouvernement am gis ci alinéa bu code pénal parce que daf ne les peines prévues à l'alinéa précédent sont applicables à l'offense à la personne qui exerce tout ou partie hmm. des prérogatives la c'est un il est délégataire des pouvoirs du président de la République. kon mën naa jàpp ne lii offense au premier ministre am na. man la Ousmane Sonko nag moo ko fi jëkk a tudd. maintenant dama la wax ne la Ousmane Sonko président Pastef moo demoon université. la mu ko wax koo baa jaxate mi koy tontu ci président Pastef la doon tontu. kon offense nekkul maintenant yeneen di yeneen yi nga xam ne daf koo wax. yoo xam ne jiitu na lii. Ousmane Sonko Diomaye Faye ak seeni avocat ak Ousmane Diagne nañu xam ne amnistie bi tax mhm. Bassirou Diomaye Faye ak Sonko taal réew mi génn nekk nekk am amnistie bi tax ñi taal Auchan yi taal Total yi yàq BRT taal université di taxawal amnistie boobee mooy yóbbaale jëpp wax joo xam ne ci politique ci biir pa biir amnistie boobu kon Bah Diakhaté fa dara bu ne su ko topp ci lenn ci li mu wax. alors euh, ñu bëri jàppoon nañu ne ce nouveau régime dañu jaay rupture alors euh, avec euh, l'arrestation de certains opposants certains pensent que ni mbir yi continuité lay nuru.